mais papa contre ak Balla Gaye coow li na lool nee nañ Boy Niang du bëreeg. moo Balla moo gën a neex yooyu yooyu ay Aziz Ndiaye da koy wax pour pour mafia ñu. da leen bëgg a gëlëmal daal. pour nga ngaaka Sénégal. maa ngi la ko wax tey Balla Gaye si gën a neex daan. mais père dafa am benn wax bu mu. ba muy ba muy bëri la Amady Sénégal yi ba muy bëri yëpp yëpp si man la ko entraîné. Balla Gaye gën a neex a daan ci bëri Sénégal barke Cheikh na sax saat bu maa la ko wax. mais père dafa am dafa am benn wax bu ma la déggoon nga wax ko bu per dama la déggoon xool nañ ko fu nekk gis ñu ko. bu amee dix bu amee cinq minutes bu combat boo ñaa bu amee cinq minutes yàlla na ma yàlla rey. déet. non man kay maa wax loolu. déet père déet yow kon xoolal waxuma mer xel laa lay waxee ak xol. dëgg dëgg ak dëgg laa lay wax si kàttanu borom. nga ne combat Boy Niang ak Balla Gaye bu matee cinq minutes. yàlla na ma yàlla utu fële yàlla nañu daan Boy mais père. père xam nañ ko ñoom xam nañ loolu bu wóor. dafa am dafa am wax bu ma déggoon mu waxoon ko. attention le promoteur ba ñàkkul fayda de. du yéen jotoon ngeen avance. gas waaw mais Gaston ñàkkul fula de. Gaston amul borom milliard bu ko mën a manipuler. waaw ah, loolu moom am na moom. rek ne démb tey soog a ñëw. la. doo ko imposer si lu mu bëggul. dëgg la doo ko defal mafia doo ko tegal affaire doo ko tegal ay nijaay ay ay ay ay maam. dëgg la gëmul loolu ne léegi la nekk seen maam mais ñoom ñëpp bañoo bañoon. dëgg la bu te bu mu déllusé si la la mu ñëwaat. dëgg la. nit li mu li ko yàlla may da nga ko ko nangul. Gaston moom moom làmbu Sénégal. mooy jiitu promoteur yëpp. waxuma ma làmbu Sénégal Gaston ko moom moom la rawaani Sénégal àndal ci làmb. comme boxeur boobu mu ànd doon kii nu mu bokk ànd amoon la boxeur américain amatul daal. est-ce boo boo ñëwaat baax waaye yow man damay ngaaka yow it. est-ce que. ngaaka ñooy def ay koo xam ne yow xamoo dara ci laam Aziz yi ma yor na ko yàlla may. mais xaalis bu daan mbër. ah. xaalis waaw kon Macky Sall am mbër. dëgg laaj ko Macky moo ëpp kii xaalis Abdoulaye Wade mhm. mais père père dama bëgg ñu dellu si tuuti. parce que dama waaw du mën a yàgg d' accord ah, dama la mës a dégg nga ne sa doom du mës a bëgg ak doomu Double Less yàlla na ko yàlla yërëm. waaw man mosuma xoolal génne ban kii laa ko wax. mosuloo ko wax. mosuma ko wax. dama ne ah, bi ñuy def. Mhm. booy ñaa. Mhm. Double Less ak Mbaye Guèye ñoo si njëkk. waa lamb ji. boo boo daanu Sa Thiès daanu Balla Gaye ban chance foofu laa bëgg a ñëw nga bëgg Sa Thiès daan ko. sa déwén jële wala ñëw mu daw. kan Balla Gaye. waaw ne day ne gàddaay te moo indi rakk ji ba si biir bi ko ne booy bii tëttalu di dof dof lu di ma laaj na jël Sa Thiès sama rakk ngi nii bu ko daanee moom bëri moom xool leen Lamine Samba ak moom. est-ce que du mbaadu fi ngeen jaarale. Sa Thiès ngeen nar a jaarale Balla Gaye. dama ne nag combat bi mu matee cinq na boo ñaa daanu. mais père li nga fan nga ko teg. li nga parce que moo gën a niil ci mbëri Sénégal. père loolu ñu bari du oh, waaw man xam naa. da gis ay faay Balla Gaye yu bari. lu daan saa kees saa kees lan lay bëri Balla Gaye. li tax nag nit ñi eh, yow laa waxal saa kees dañ ne tafaati moo gën a cuune ci. moo doon moo moo moo doon ku daan daan Omar ñaar yoon. ku daan ku daan Balla yoon. <laughs>